Ah, asalaamaaleykum sëñ ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ziar naa la sëñ. Eh, tur bi naka la. Assane Gueye. Assane Gueye eh, yaa ngi jógee ba fan. maa ngi jógee parcelle unité 3. Ah. si wàllu famille la nga bokk. non non bokkuma ci wàllu famille mais wàllu seek moom ma yëkkati parce que nga bokk ci wàllu famille nga ñàkk cee bokk wàllu moom daa nekk suñu biir xool quand loolu ma yëkkati. noo tey waa waa kii tey Wally Family ñoom organisé euh, grand théâtre ndax sargal seen waa ji Wally Seck. waaw loolu moom c'est un grand fierté parce que Wally Seck en plus sargal biñ ñu ci sargal Papa Thione te loolu fierté àdduna bi la parce que Papa Thione moom monument la vraiment kontaan naa ci lu bëree bëree bëri bëri. waaw ak ñii ma àndal tamit kontaan nañ ci. noo gisee présence Wally Seck sur la scène musicale. neex ambiance bégal dindi stress. loolu laa gis si waa Seck. des yi ñu critiqué Wally Seck loo siy mais noonu la c'est la vie nit yoon boo gis am na critique mais yow yaay gëm sa bopp xam li nga doon xam fi nga bëgg àgg nga nekk fa mais lu amul critique du dem. loolu laa gis. musique Sénégal mën nañoo wax ne Wally Seck moo ko téye wala. mais pourquoi pas parce que loolu lay ñaan te man ci yoon boobu te moom lañ ko bëgg tamit ñu ni loolu lañ gis si moom. Hmm. vraiment. Mabo design la maam Thierno. si ah. mhm. wàllu fam la nga bokk. non bokkuma ci nag mais moom ñëw rek pour seetaan si quoi. lan moo poussé ba nga ñëw ba nga ñëw tey fii tey. liggéey weekend bi yëpp samedi jot rek nga ñëw feexal soxal mën a fi indi quoi. mais Wally Seck sa centre la. non waa santé du peuple la macha allah mën na mën na. limité événement bi fii tey si événement bi lu nar a neex la nar a doon parce que Wally moom ku ko xam-xam ni ambiance moo ci man wax dëgg yàlla macha allah. waaw lu neex lay def. na nga gisee la scène musicale. non jàmbaar la jàmbaar la parce que jeune bu mel ni moom ba pare nekk fi mu nekk quoi loolu yombul wax dëgg yàlla ñi ngi koy ñaanal daal affaire yi gën a dem ci kanam quoi di ko ñaanal yàlla lafal ko cat quoi macha allah. Hakim Thiam la. dama war a sa présence tey. ah tey gis rek ñëw suñu artiste bi ko waa dooleel ko rek. Wally Family nga bokk. Wally Family waa ñu ci Wally Family waa. ñu seen soobu mag. waaw ah, affaire moom macha allah moom bi ñu ñëwee fi affaire yi macha allah taaru na daal kontaan nañ daal si moom. Ah. ko ñaanal rek. Ah. loo koy ñaanal mu gën a yokk rek yokk ndam rek ci kaw rek ba ci kanam. yow tur bi la. Assane Ndiaye la. Assane Ndiaye. bokk waa famille si Ndiaye waaw ñu ngi bokk Balago famille. Hmm. Hmm. waaw Balago famille Waly famille bokkul. non non non non daanaka ñooy suñu président. Hmm. balaa Balago Wally Family mooy groupe bi nga xamante ne moo jiitu si Wally Balago Family moom moo ci topp. la moo waral doo waaw xam nga yëf moom bon dafa toll foo xamante ne ku nekk da ngay xëcc jamono sa côté mais nag ak lu mu métti métti rek benn groupe la. benn groupe la parce que ñun nangu nañ ne ñoom ñooy jiitu ñun ñu topp seen ginnaaw waaw mais ñoom ñi nekk ci kanam aussi kenn xa xajamalul liggéey bi. lan moo tax lan moo tax dama si groupe Wally non pour l'instant nii mën a guñ ci bokk parce que loolu moom du man maa siy wax parce que dafa am ay kilifa yoo xamante ne ñoo ñu jiital waaw moo tax loolu moom. waaw suñu président fii mooy ànd ak ñoom di liggéey liggéey bu rafet diggante Mamito mi nga xamante ne mooy présidente Wally Family euh, Wally Family ak Farba Mbaye mi nga xamante ne mooy président Balago Family mu doon ànd bu yàgg boo xamante ne depuis euh, depuis depuis 2006 la. depuis 2006 la depuis Wally débuté ba léegi loolu moo waral lii tey léegi ñu bokk si ñi nga xamante ne dañoo doon éviter d'honneur yi moo waral suñu teewaay fii tey. noo gisee présence si la scène non nice ah nice parce que bon comme li ñuy wax rek yoonu ndaw la te yoonu ndaw du gaaw te ram moom mooy tax a yegg fa nga jëm ndax lépp loo gis rek tepp tepp la te tepp tepp moo gën ñu réer waaw. noo gisee des fois Wally Seck nekk soo bi toujours toujours polémique bi dafay dal si kawam coow li. waaw xam nga euh, Sénégal moom loolu moom sama maam sax dama doon dégg mu di ko mu ne àdduna ku beñ ñu tudd sa taat bul wane ginnaaw waaw ndax àdduna moom ku jiitu rek ñu wax ci yow. te macha allah gone gi daf leen raw daf leen raw ñu war ko mën a ñaanal ah mais sànni xeer bi moo mën a ñàkk parce que euh, macha allah Papa Thione def na fi loo xamante ne nii tey ak lu mu métti métti war nañ ko ko mën a fayee doomam. kon tey jii bu doomam. soo xoolee coow wàllu famille ak ak Pape Diouf dafa ñëwaat. non loolu moom ay détails la rek waaye ay détails la rek dañu peut-être xaj na loolu ñu naan jiitu nga leen sànni karawaas gi dañ leen raw ba pare ñu bëgg a toppaat seen ginnaaw rek noonu rek la ñu mën a def pour jéem leen a def ah mais leen a def jarul geesu jarul tontu ah nekkal li li nekk sa kanam la nekk sa kanam rek. te Modou Wally ñu waaw waaw sëñ ñu ngi lay fay. <laughs> yow yaa doomu Wally. waaw waaw waaw non Wally moom sama gaay la. sama lépp la. waaw moom moo wax dëgg sa yàlla moom borom baax la. Hmm. amul problème mu àdduna te xaalisam moom. wax dëgg si yàlla moom yaa ko bàyyi ci loxoom xanaa di ko ñaanal yàlla rek yàlla yàggal taxawaayam. lan la Wally mos a defal non Wally li ma defal bëri ah, barke yeneen wi. Hmm. Wally chaîne gii ma takk. Hmm. Wally ma ko jox. lii seenu lan la. lii rek. waaw chaîne la ah, hmm. may waaw fële sa tëngeej. waaw wooy ma wooyu neex ndeysaan mu. Modou Faye nee na dama laa bëgg mais maala raw. Hmm. waaw woy wu neex ndeysaan. la hmm. ma woy ba pare tëkki seen gi seen gi sax Ndiaye Rambo boo ko jox waa mu daan ma koy takkal. Hmm. waaw waaw pare defal ma teraanga teraanga ju bëri kar macha allah. lan la defal si teraanga ah ma defal non waa li ma defal ci teraanga moom bu ma toogoon di ko wax dama du di ko wax. fii ba suba fi laay fanaan. ñaata la mos a may ci xaalis. non li ma mos a may ci xaalis moom bëri na. waaw na. waaw. tey waaw parce que li ko jarak a jar. Hmm. barki yàlla li ko jar moo ko jar. waalee ko jar moo ma jar a fii ba Kirikoro bu nekkoon Kirikoro soirée bi nekk Kirikoro sax. Hmm. waalee ma ko jaral wallahi dama ko bëgg te yàlla tax. Hmm. wóor na alxuraan di ko ñaanal yàlla rek yàlla yàggal taxawaayam maanaam li muy dimbali si ay doomu aadama yàlla fay ko ko ngëneel. barke Sëñ Tuubaa maa ngi tudd Cheikhou. Cheikhou bokk Wal Family. maa ngi bokk Wal Tambacounda. Wal Family Tambacounda nga jóge da ngaa jóge Tamba fii. damaa jóge ba Tambacounda ba fii. Hmm. ngir waal yi. Hmm. parce que Wal Family boo soo gisee ma bokk Wal Family Wal Wal spécial Wal si boppam nit ku baax la. Wal boo bokk Wal Family da ngay lu bari moo tax ma bokk si Walf Family hmm. waaw. noo gisee présidence bu Walf Family sur la scène musicale. sur musicale bon ñun daal ñu ngi ko kii rek ñaan yàlla bu Wally ñu ngi ko ñaan yàlla du jokk doole rek pour am disque door am moom lu moom moom moo xam lu mu bëgg si musique bi mu am ko quoi daal hmm. waaw hmm. Euh, léegi soo xoolee Wally Family nga bokk Tamba est-ce que bu nga si bokk neex na say famille wala. waaw Wally kay neexutu bañ de wax dëgg waa neexutu bañ de ñëpp ñoo ko bëgg même xale parents yi même paa yi si même gëmmo nañ ko waaw Wally neexutu bañ Wally famille si boppam neexutu bañ si boppam. léegi léegi waa Tamba foofu am na fa ay fans yu bëri. yu bëri am na fa ay fans yu am pagaille Tambacounda wala am na fa ay tout tout tout waaw. ok loolu mën na wax si Wally daal lu wax waa famille lu may wax waa famille gars yi ñu booloo doom benn te xam na foog na loolu am na. waaw ñu ñu ngi jàppale suñu artiste waaw ñu ngi ñaane yàlla lu mu bëgg si aar bi mu am ko loolu rek laay wax si wàllu famille gars yi. Euh, Soda ñu ngi leen di nuyu. maa ngi leen di fay. yaa ngi bokk membre Balagu famille. waaw membre Balagu famille général. lan moo moo war fii tey si événement Waly famille. pour ñoo jàppale waa parce que Balagu famille ak Waly famille yëpp benn la. Euh, mhm. euh, pourquoi deux nee naa la lépp benn la lépp ci mariage la ah. waaw. dama tax wax yéen waa Ballack famille dama leen bokk loolu am na parce que ñoo ngi nii tey waa Waly famille woote waa Ballagu famille génn gis nga xale yaa ngi nii. Ah. waaw. nan nga gisee événement bi. événement bi daal commencé na jaar yoon commencé na neex ta dara xewagul. Ah. Mhm. Eh, lay wax si Waly Ballago. di wax euh, tey daal du yomb daal. papa daal tey dina toj. incha allah. ok lu ñu mën a wax si Ballago Balago Family général nee naa ko ñu ngi si social ñu ngi ci yëpp xale yi nga xam ne Wally dong moo leen intéressé Wally lañ bëgg Wally lañ gëm may doon. Mm-hmm. Wally Seck moo leen di ñuy jàppale moo ñu tax a ko woowee papa. <laughs> parce que suñu papa la. <laughs> tur bi naka la. Farba Mbaye. Farba yow yaay président Balago Family. waaw mooy président Balago Family. pourquoi Balago Family Wally Family. da mën a génnee si turu Waly Balago mën nga ko cee génne waaw jeex na Waly Balago. jeex na mais lan moo dama leen bokk ci si Waly famille. mais équipe bu nekk day am ay club dëkk day am club. waaw Waly famille Waly famille moom mooy moom mooy moom mooy équipe bu mag bi. du dëgg moom mooy équipe ñooy club yi rek. Ah, waaw. Ah, ok mais noo gisee tey soirée waa sant yàlla rek lii moom du duñ ne guleet ko hmm. waaw parce que ñun moom yàgg nañ leen ñëw te aussi tamit ci ñoom ci suñuy njiit lañ. kon bu ñu xewlee dañuy bàyyi suñu lépp ñu def lépp ñëw quoi vraiment. Euh, noo gisee présence Wally Family Wally Seck sur la scène musicale. mais comme d'hab rek loolu ni ko Sénégal yëpp gisee laa ko gisee di ñaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla yokk affaire te xam ne mu ngi def mu ngi changer musique bi nice mu ngi ñuy bégal aussi tamit wax dëgg yàlla. parce que mënoon nañoo nekk fansam ba pare mu mitti ñu mais dañoo nekk fansam mu neex ñu ah parce que à chaque fois mu ngi def ay démarches yu rafet démarches yoo xamante ne dañ mu ñuy satisfaire ñun. wala yéen moo leen poussé ba ngeen créer Balago famille surtout en tant que yow nga ne da ngay bokk si Balago famille. waaw Balago famille li ñu ci poussé mooy euh, ku ne Balago xam nga ne ñu ngi woon ñu ngi débbi woon ci papa ci papa Thion jamonoy papa Thion la woon xam nga ñu jàpp ci jàpp ci ba tey waale ñëw kon moo tax Balago famille si biir la papa Thion nekkoon ba ni ko yàlla di jëlee yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mooy loolu ba léegi mooy la Balago famille def na 12 ans. wala hmm. soo nekk cœur. de polémiques polémique bu jeex sa morom ñëw temps yii moo Pape Diouf da waaw mais ku ñëpp tuuti nga tooy yow kase boo fi nekkoon ñi ñi di la gis foog ñu lay wax benn bant donc boo ko sampee ku romb xam ne bant la su deful woon lii du am lii waaw noonu la affaire yi moom noonu la kuy bëre moom di daan bu yàggee li bëri loolu ñun ay sénégalais xam nañ loolu. yeah mais bii day naan album album Wally Seck bi quoi xawut noonu bu bu Pape Diouf baax a waaw mais est-ce que Pape Diouf album la génne. Ah, dama lay poser question yaa ma ko yëgal tey. wallahi azim barki Cheikhu Tidiane. yëgoon ni Pape ya fa génne barki Cheikhu Tidiane ma yaakaar yi tey laa yëg. tey laa ko yëg man Ndongo Lo Waly Seck Youssou Ndour. noo gisee album waaye saf saap rek album bi gisoo yow gis nga ne mu ngi toj yaa ngi koy gét. waaw mu ngi toj wax dëgg yàlla. voilà dernière question affaire bi doo am affaire de jalousie entre Balla famille et Waly famille. non Mamito mooy sunu njiit Bamba mooy sunu njiit man maa ngi biir Waly famille man Farba biir Waly famille laa nekk non loolu moom ñu ñëpp benn lañ. Hmm. sëñ lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay jàmbaar. tur bi naka la sax. Euh, Issa Dieng. Issa moom bon mooy tey am na nañu mbégte am kontaan sunu artiste yu tëgg xam nga bon ñu ñëw jàppale ko ci bés bi. loolu moo ñu fi indi. yow Waly famille la nga bokk. waaw mais Wally moo fi ne mooy way mooy tëgg mooy star bi waaw mais tamit faaw xale doon Wally famille aussi. waaw présente euh, waaw euh, présente am bon li ma ci gis bon xam naa ne neex nañu bëgg na nañu xam nga li muy def neex na nañu sopp nañu aussi am ci mbégte aussi vraiment. voilà en tant que ça yow dañ gis TikTok bi des fois. waaw dañ may gis si TikTok bi. oui may borom TikTok. des gis ngeen da ngeen nekk si au cœur de la polémique ngay saagante ay bi. non saaga bi euh, saagawuma kenn. parce que euh, saaga yi man sama vie la bokk quoi. mais du question ne damay classe wala damay saaga nit wala du genre. kenn defuma dara kenn waxuma dara loolu ci sama ambiance la bokk. mais ñu bëri des fois booy saaga ci TikTok bi dañuy jàpp ne da ngay classe wala da am koy waxal wala du genre. lan ba ngay ba ngay def ba ngay. dara méttiwuma saa yu may saaga dama ci ànd ak mbégte ak contentement aussi. no soo gisee yi gars yëpp ñu bi ñi koy def mooy ñi nga xamante ne nii xëyuñu gontuñu mais man maa ngi ak sama place maa ngi liggéey macha allah yàllaa ngi may suturaal. dew ma palaasu kenn ñaan la wala dem kër kenn di la ñaan du genre. non man man man ku taxaw sama kanam saaga ma ma lekk la. bien sûr man ku taxaw sama kanam rek nee ma sa bët bi suuf a ngi ci dama lay lekk. bien sûr da xeex. damay xeex damay xeex ba dugg boîte vocale. bien sûr mais des naan sa comportement kii beeg yooyu kuwaay. waaw comportement bi. man des fois comportement man duma ci jugé nit parce que pourquoi du ma ci jugé nit euh, nit waroo tëb-tëb di ko jugé ci comportement am te yow amoo ci moom preuve bu salte wala du genre nañu bàyyi loolu aussi te xalaat ne ñun ñëpp ay julli dañu ñun ñëpp ñoo bokk ca euh, ci xawma ma nuñ koy waxatee ca yàlla quoi mais comportement bon duma ci jugé nit man sama look man sama look man lu ma lu ma def lu nekk rek man la neex quoi voilà. waaw ñu ngi taxawal ku ñuy euh, ku ñuy wax bande de bande de Thiès ah. bande Thiès le perturbateur. le grand perturbateur. waaw mais lan moo tax perturbateur bi. waaw mais parce que aar bi aaru perturbé la. waaw. yow ambianceur la ban genre la. ambianceur la danseur la lépp la ci kanam tuuti nag incha allahu di ngeen découvrir kan mooy bande Thiès incha allah d'ici trois mois rek di ngeen gis clip yi. di ngeen gis style yoo xamante ni maanaam toj na àdduna incha allah xaar ma léegi léegi incha allah ndakaaru nan ma xaar. diggante Wally Seck ah diggante ak Wally Seck gisoo ba ma ñëwee ba mu ñëwee ci man la njëkk a ñëw nit ku ma fonk la nit ku ma jox cër la su ma nit la te bu ñëwee Thiès man maa koy teeru man maa koy teral mu doon nit ku baax nit ku mën nitam en tout cas daal Maria Sine na gudd fan rek loolu rek lañ koy ñaanal barke yonent bi. noo gisee Wally la scène musicale. mais c'est le perturbateur dama ni man tuddeetuma ko Wally xam nga lu ma ko tuddee le perturbateur de la musique du monde. pourquoi ah, mais musique bi tamit moo ko téye moo ko téye moo fi ne moom la fi yàlla teg te nag nangu jël na cëri bañ. moom la fi yàlla teg na ko ñëpp nangu. mais nee nañu ñu bëri nee nañu Wally Seck dafay xaar lan moom loolu ay waxi lan la. ah, ah mais loolu wax la rek ah, xam nga ni waaw soo xoolee nii rek ni passé moom moog Pape Diouf ñu ngi doon xëccoo baaru waaw loolu moom xam nga dama ci dul sori ndax loolu nit ñi ñoo koy waxal seen bopp loolu duma ci sori Wally ak Pape juuf loolu duma ci wax l'essentiel que ni internet baa ngi fi. nit ñaa ngi fi nit ñaa ngi commentéeral seen bopp mais loolu moom je mal placé mais instant bi moom Wally laa ñëwul tëbb ko ba mu mokk dem ñibbi Thiès incha allah. loo koy ñaanal. ah loo koy ñaanal. gudd fan wérgu yaram ndax fi mu yóbbu musique Thiès nag musique Sénégal mais kenn mënu koo wax en tout mi ngi bégal xol yi xol yaa ngi féex la vie est